40 sunu gan Pape salam alaykoum wa alaykoum salam Cheikh Ababacar. ñu ngi lay dalal jàmm di nuyu Georges Y'a Diop euh, yaa jiite directeur général ASPT agence sénégalaise de promotion euh, touristique ci walu politique nga euh, bànqaasu communication ou Benno Bokk Yaakaar njëkkee euh, mbëkk mi Barça wala Barsaq ak li ci mujjee xew. fii ci Wakam ñu koy wax démb ba léegi ak euh, gaal ko bëggoon yóbbu euh, gone Espagne far sottiwul euh, fukki néew ak juróom-ñett lañ génne ci géej gi démb nan ngay jàngate xew-xew boobu xew démb. waa jërëjëf Cheikh Babacar xanaa di njëkk jàlle sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ñàkk seeni njaboot ci gaal yooyu di ko regretter. ndax ay ndaw seen destin du dugg ci ay gaal di faatu ci biir géej gi ñu mettitlu ko lool te di ko masawu njaboot yëpp loolu mooy li nga xam ne moo ñu njëkk inspiré mm. di regretter vraiment cette ce phénomène qui est très complexe mais i tamit surtout dramatique ndax ndawu Sénégal des jeunes seen destin du waru a mun a faatu ci géej de cette manière. Mhm. xam naa yéen ñi yow taw mi de ngeen am lool yi faatu rek na métit di ni da ci réew mi fii leni leen ñu bëgg a seet leneen. waaw euh, dañ koy regretter métit ko comme sénégalais mais yi tamit euh, am ci analyse bo xam ne wax dina euh, dina complexe ndax degle émigration économique am ci. Euh, mais nous remarquons aussi le phénomène bo xamné la c'est un phénomène euh, global euh, nekul rek Sénégal mo am problème bu ni mel continent africain bi yépp moo Il am a réew yi tamit yu ni en Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord Il y a le même phénomène d'émigration c'est un phénomène complexe bo xamné dafa laaj ñu am une analyse de xamné dal dina jël plusieurs acteurs plusieurs facteurs facteur économique bi da ci bokk euh, mais amna na yeneen facteur aussi yo. xamné euh, war nañ ko mëna bolé ci àndale ndax mbir mi Babacar dafa dafa jégi dayo so xolé sax sudul fi ci Wakam so jëlee désert bi amna ay africains yo xamné ñu ngi jëm Europe di ko traverser dans des conditions dramatiques traitement bi nga xamné aussi suñu mbokk yi nek en Afrique du Nord ñu ngi leen kay traité dañ koy lu itam nga xam Libye la xam Tunisie ya xam Maroc je pense que question migratoire bi warna question dépasser analyse sur le niveau national avec une question économique qui est vraie mais waruñ ko yemalé fofu mais niveau national surtout est-ce que du euh, li nga ne da ngeen tegul dara ci en termes li nga xamante ne ci la ñu war a mën a jëfandikoo donte à tout moment on dit que bon voilà on a créé tel nombre d'emplois des milliers d'emplois mais euh, des emplois yi nga xamante ne la plupart du temps c'est des emplois précaires yi nga xamante ne mënul assurer seen i ëllëg hmm. waaw xam nga mënuñu wax ne moom euh, tey jii Sénégal dañu am le plein emploi am euh, globalement euh, des emplois yu doy pour toute la jeunesse sénégalaise C'est ku ku ku ku ubbiwul ay gëtam mo mun wax loolu effort yi nga tamit gouvernement def nako ak instrument yi nga xam moy créer de l'emploi financer l'emploi pour les jeunes et l'auto-emploi que ce soit la DER que ce soit le 3FPT pour la formation professionnelle euh, les 500 000 emplois yi nga xamné ne dégg naa Babacar di ko di ko di ko xarab démb mais tamou donne une réalité chiffrée mais effort yi nga xamné gouvernement bi ngi koy def aussi ci programme xëyu ndaw ni nit mënu ko naatable mais lolu soko ko yi tamit firndewul né le besoin en emploi de la jeunesse ni mu toll lepp réglé ngoko désolé mais euh, li ngeen fi wax yëpp te yàgg koo wax ni moom ngeen ni defal gone yi euh, dayo bi mu waroon am ba mën a téye gone yi eggul ci dayee bobu tay def ngeen fukki at ak benn. waw lolou mom du luñuy du luñuy ken kenn mënu ko naatable waaye li nga xamné mom le président Macky Sall proposé Sénégal moy le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 amna djégo yiñ ci def ken mënu ko naatable waaye yeggaguñ foo dañuy am le plein emploi la perspective c'est 2035 ndax problème mu xeyu ndaw ñi dafa bëri facteur pour liggéey il faut d'abord un métier pour un métier il faut une formation professionnelle et puis il faut attirer des investisseurs d'une certaine manière pour qu'ils pour effectivement euh, de l'emploi dans leur pays chemin Bobou, quel engager les centres de formation professionnelle qui vont être créés la professionnalisation des filières à l'université nous lieux objectif pour atteindre le plein emploi mais Babacar pour revenir qui problème bi nga posé muy problème mu immigration question économique bi amna mais il faut aussi ñu l'émigration l'immigration n'est pas une question sénégalaise scripto sensu c'est tous les pays autour de nous c'est tout le continent de l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique du Nord c'est les mouvements migratoires yu de l'est vers l'ouest n'est une spécificité exclusive du Sénégal Là aussi il faut que ñu ti ci et les phénomènes migratoires répondent à plusieurs facteurs et même historiquement nit ñi dañu mus di wu de région à région. mais bu ñu demee ci li nga xamante ne moo di musiba yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku fan yi weer yi ci euh, géej gi euh, ay xalé yu bari di ci ñak seen bakkan euh, bu problème de l'emploi, la hmm. problématique de l'emploi, cumulé kook li nga xamantene modi lu jëm ci walu licence de pêche yi ñu ne ñu ngi piller suñu ressource halieutique ba nga xamantene sax ñom ñoo doon nap capitaine gaal yeeg yu ni mel amatuñ fu ñu jëm donc ñooñu ñoom ñooy ñoom ñooy dawal gaal yi. Mm. te ñoom ñooy yóbbu ndaw ya nga xamante ne euh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy bëgg a dem bitim réew. waaw man gëw ma ne. dafa la la ñu bëggoon moo tax itam ñu sóobu ca euh, ci aventure yooyu noonu di jël ay xale di leen fayeeku. man gëw ma ne rek euh, dafa fekk. phénomène la vérité c'est que y a l'Europe dafa un territoire attractif pour notre jeunesse et pas que pour la jeunesse sénégalaise c'est la jeunesse du continent c'est la jeunesse de l'Afrique du Nord etc et c'est lucratif c'est un trafic c'est pour ça que nous félicitons euh, les, les décis la décision des autorités de créer ce comité interministériel au ministère de l'Intérieur qui doit permettre de lutter contre ce trafic illicite euh, de migrants parce que c'est lucratif nit ñi dañ ciy fay seen xaalis dañuy dajale ressources yu bëri dugal ko ci pour mën a tukki dem. ba léegi nag euh, taxul yi fi wàññeeku Kafountine euh, Elinkine Thiaroye Géej galé ne gaal yaa ngi fay bawoo di di di dem ba ci Fass boy ki liñ jang ci kay yi tay yow bu dee ngi jox gone yi xëy fi nga xamni ne fi nga yëngu di tourisme nga jité agence sénégalaise de promotion touristique ak yeneen bànqaas yi aju ci tourisme ana yan liggéey ngeen jox gone yi bi ngeen fi toogeek léegi. waaw liggéey yi moom loolu chiffré nañ ko waxoon naa ko ci sama début waxtaan mooy 500000 emplois yi président Prometron def na ko. Euh, là aussi également avec le programme Koyu euh, avec l'objectif... Euh, l'objectif tourisme bi sax vraiment wax mom tourisme waaw le ci secteur du tourisme bi tam dafa secteur c'est un secteur important pour l'économie sénégalaise euh, dafa am plusieurs chaînes de valeur notamment sur l'hôtellerie mais aussi le tourisme dafa transversal ndax ñi ci liggéey dafa bëri nga jël artisanat bi daf ci am impact nga jël horticulture bi daf ci impact tout ce qui est dans la chaîne de valeur touristique d'Aftiam impact donc ce n'est pas moins de 100 000 à 150 000 emplois au minimum nous sommes en train de conduire euh, un processus qui doit nous amener à avoir une actualisation d'ailleurs de cette contribution du secteur du tourisme parce que y a ne dépassé na euh, li nga c'était une évaluation il y a 10 ans qui faisait qu'il y avait pas moins de 150 000 emplois qui étaient issus du secteur du tourisme et bien sûr qui touche particulièrement le secteur euh, le, le, le, tourisme mais le Babacar sur mais mais tourisme boobu hein. évolué en dents de scie en dents de mais période bimom, période bu mais juste pour terminer sur euh, sur sur sur l'immigration le Babacar dafa dafa jot aussi je pense à un moment donné les conditions yi nga génies vers l'Afrique du Nord ni et les déclarations terribles de par exemple du président de la République de la Tunisie sur l'Afrique du Nord je pense que il est temps que nous prenions nos responsabilités pour protéger nos enfants qui sont dans le nord du continent et puis les questions migratoires à qui profite le crime Génie yi en Europe mais c'est eux qui sont dans le secteur de l'emploi c'est eux qui nourrissent et qui sont le bras armé de l'économie européenne je pense que nous poser les questions de l'immigration, c'est une question biaisée. D'abord, ce n'est pas simplement le Sénégal, c'est tout le continent. bateau yi des wax mais mi Mauritanie mi Maroc mi Tunisie fait la sur le continent en Europe parce que aussi euh, la vérité c'est que c'est eux qui vont effectivement servir sur le continent européen de bras et d'énergie pour développer ce territoire-là. Mmh. La question migratoire est biaisée sur la façon dont elle est posée ndax des jeunes qui sont euh, en désœuvrement économique et qui prennent les bateaux il n'y a pas que ça parce que y a ñuy dajale qui bu takku yor ko aussi je pense qu'il faut plus de sensibilisation pour que nous ñi mais aussi la question migratoire il faut que nous engager de façon ardue notamment sur le traitement qui est fait aux jeunes africains en Afrique du Nord c'est inacceptable je pense que nous devons faire davantage pour d'abord protéger ces enfants-là qui sont sur le continent africain et que d'autres compatriotes africains traitent d'une façon mmh. inacceptable. Mais aussi la question migratoire ne peut pas être fermée sur le territoire national sénégalais parce que bateau Yemoul, yemul Kafountine Guinée-Bissau dañ Mauritanie Maroc partout c'est un phénomène continental Tunisie Sénégal euh, mën maa ngi eh, tàmbalee sonal askan wi ak yeneen ak yeneen waaye dafa mel ni talu leen ko politique rek fi mu ne nii yëfi candidat rek ci ngeen nekk eh, Macky Sall a ngi tukki tey dafay jógee Sénégal demaat Russie xam naa Poutine lool fan yi eh, suba conseil des ministres du am ministre yaa ngi toog seen kër di nelaw di xaar ay candidats voilà la situation actuelle du pays liggéeyu leen waaw je pense que euh, réew Mom, moom euh, taxaw xool sénégalais nan les leen liggéeyuñu sénégalais sen bop am nañ tontu bi ko Khol xar kanamu Sénégal tey Khol euh, ko ya dix ans xam nga ne fii liggéey bu le fi majorité ligé, à sous le leadership du président Macky Sall candidat nak faw mu am ndax effectivement coalition Benno Bokk Yaakaar da choisir son candidat Nous, woo nag vraiment tous les militants et toutes les militantes de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la sérénité ndax ce n'est c'est pas un enjeu individuel. Ce n'est pas un enjeu de destin individuel. Il Mais pourquoi Moui éterniser alors qu'on avait donné rendez-vous aux Sénégalais qui a week-end ou le Mouessou Oui, ce que je mom fim tol ni kay amul problème candidat mom dinañ ko am adit ah, dinañ digé bor la kay amna yewu askan way way yeen yewu len <laughs> yewu len askan wi waaw so lolu nga wax nonu dama ci and ak yow askan wi limi xaar moy le candidat de Benno Bokk Yakar la coalition de l'espoir la coalition qui a un bilan incontesté et sénégalais c'est aussi pour ça d'ailleurs que le candidat de la coalition est attendu sous le leadership du président Macky Sall la déclaration Bimfedef, ça a touché tout le pays ça a touché tout le continent et la communauté internationale Nous avons décidé donté mom amoon na droit doon. candidat liggéeyu Macky des na de. mu liggéeyu Macky des na. est-ce que est-ce que Sénégalais yeen ñu leen bàyyiwaat ci nguur gi. loolu ku candidat bu ngeen mënti am est-ce que. sen fukki ak ben wala doon fukki ak ñaat deewen Sénégalais yi nañ leen joxat réew mi yeen yeen yéen ñi mu renoncer à cette candidature ba paré daldi né mom nak dina soutenir yi nga xamné moy coalition li tax nga nan ñu yewi askan wi wax nga deug askan wi limi xaar moy ki nga xamné mo moo nar doon le porte drapeau de la coalition victorieuse, la plus grande coalition de l'histoire du Sénégal et qui a le meilleur bilan de l'histoire du Sénégal. Donc lol nak euh, mandarga ci li sénégalais amna bu coalition bi il faut pas que les militants de la coalition Benno Bokk Yakar déçoivent. Il faut qu'on soit résilient, concentré sur li le bilan et le projet du Sénégal émergent à l'horizon de 2035 qu'importe le porte-drapeau. lan moy bilan Macky Sall stade du Diamniadio sénégalais wax ba xam ko que ce soit sur l'impact social la rupture incroyable en matière d'inclusion sociale en matière d'équité territoriale en matière d'infrastructure wax nga le terre mais aussi le BRT et qui va souffrir la renaissance du train Babacar so mu bëggé dugal ci bilan des souris mais li am solo soli tailleur bi yàq xaalis la parce que mën nga am train bu ngi mel ni nga am nga am benn Rolls Royce bëgg ko dawal diggante Caaroy ak Yëmbal ñaar yëpp la tailleur bi euh, diggante Dakar ak Diamniadio plus tard peut-être AIBD euh, xajul fii sax mënoon nañu ut beneen train bu ko gën a yomb jël xaalis ba ca des def ko ca leneen mais euh, vous êtes peut-être un régime mégalomane yu yu rëñ rek ngeen bëgg quoi tiitaru dosé mag yi wengal mbagg di jaay ne liggéey na <laughs> mais loolu rek Le Sénégal mérite la réhabilitation du train bi Dakar Bamako c'est en cours et ça va se réaliser mais mérite aussi un train express régional sénégalais yi jóge Mbao jóge Diamniadio jóge Rufisque jóge tous dans Kermassar, Massar di jël train bi chaque matin di liggéey Dakar mérite ñu une infrastructure de cette génération mais ak leneen ak leneen xam nga ci Babacar que le bilan du président Macky Sall et de la coalition Benno Bokk en termes d'impact économique et social et de transformation infrastructurelle c'est sans commune mesure Si nous nak continuer cette œuvre là au bénéfice des Sénégalais il faut que nous de la coalition Beno Bokk Yakar conscience que c'est un effort collectif c'est une œuvre commune qu'importe le porte-drapeau, ce qui est important, ce qui est important, c'est de préserver ce projet. Et ce nag ñu au niveau euh, africain niveau euh, international parce que c'est selon mais au sein même de la coalition Beno Bokyaka, qui est au sein de l'Alliance pour la République est-ce que l'idée comment commencé wul depuis que ba annoncé ni de Bok en 2024 mu sabar bu tas non non non te loolu gën a xam naa Non, non, li nga choix bi. non loolu sa xalaat nga wax rek wax dëgg le président Macky Sall euh, depuis qu'il a annoncé effectivement sa décision de ne pas être candidat au contraire son aura national son aura international euh, son crédit politique est encore aujourd'hui plus fort qu'il ne l'a été jamais. maintenant nag maintenant nag dafa doon jabot jaboot da ngay déglu jabot da ngay jabon da ngay diisoo loolu euh, noonu lañ ko xamee. la yàgg dégg Amadou Ba Amadou Ba mën candidat euh, contestation ci seen ne Amadou Ba du fi candidat. waaw ñun mooy li ma la wax. am. da koy dëggalam déet. Amadou Ba la am du du ma dëggal loolu waaye li euh, coalition bi toog nañ waxtaan le président de la république ñu jox ko carte blanche sunu itam ci biir jox ko carte blanche président de la république ko ak ñi nga tous les leaders ak ceux qui sont des potentiels candidats l'essentiel c'est de préserver l'unité de la coalition et de préserver le projet politique tel qu'il est incarné qui plan Sénégal émergent et qui a des résultats au bénéfice des Sénégalais. Yo, ban moi sa candidat Sénégalais ban candidat Sénégalais moi mooy ñi nga xam ne moom ñoo ñu tax a ñu ñu donc. Pape candidat yow. donc quel que soit le candidat. quel que soit le candidat ce qui est important c'est le projet de la coalition Benno Bokk qui a des résultats man nag sama candidat suis candidat bi président de la République du tànn te ñun pour la majorité des militants à travers le pays loolu mooy sunu posture ñu déglu président de la République candidat bu désigné nous donne le porte-étendard de la coalition Benno Bokk et de l'œuvre politique colossale qui a été réalisée dans ce pays Nous waa APR à ñu fexe ba président discipline et concentration mais war ngeen mën am choix. dama ne ñun suñu waxtaan suñu. sen tànnin wi du démocratie démocratie moy ñu ne kan mo bëgg yëkkati loxo ngeen voter ko ku jitu nek candidat démocratie mais li ngeen def ni c'est pas démocratique. loolu ah. sa sa xalaat la rek consensus sur processus démocratique la bok ñi ngi waxtaan li ñu wara a président de la république jox nañ ko toute la confiance. et xam nañ né l'important pour nous c'est pas les discours de division et les échappées solitaires ce qui est important c'est le projet politique que nous portons au bénéfice des Sénégalais De loolu ce qui est préserver mooy ñu dans l'unité Il ne s'agit pas de destin individuel mais de destin collectif l'enjeu est un enjeu de régime régime bi a un impact positif bu Ken, en termes de bilan pour le pays il faut le préserver pour la perspective de l'horizon 2035 et pour loolu il faut que les égaux nous calment ñëpp ànd doon benn say et c'est possible c'est le défi politique qui nous est lancé par le peuple sénégalais et la coalition Benno Bokk Yaakaar a les ressources humaines les expériences politiques capables de faire face à ce défi-là nous allons le relever. Pape Mamadou Diouf ñu ngi lay gërëm di la sant ma fàttali ni euh, yow yaa jiite ASPT directeur général agence sénégalaise de promotion touristique ci politique nga cellule communication Benno Bokk Yaakaar jërëjëf yendu ak jàmm jërëjëf. ñu soxna naata di nuyu George yéen rek jàmm.